xéewal bu njëkk bañu ñu yàlla xéewalal mu doon xéewal bu mu jagleel askanu jullit ñi gannaaw bu ñu joxee waxtu bu njëkk joo xamante ne mooy suñu première audience ba ñu am ak suñu borom ci suñu dund bi ba tax na boroom xam-xam su mag di xasanul basri rahimahullahu taala rahmatan waasia mu di la fàttali yow doomu aadama bi mu ne la ibnu aadam innama anta ayaamun kullama dahaba yowmak zahaba baaduk nii na yow doomu aadama bi de nanga xam ne lala fi tax a nekk lala fi tax a bàyyi lala fi tax a exister mooy bés yeey ñëw di jaar di jàll ba tax na danga war a bàyyi sa xel ne bépp bés ba ñëw jaar jàll xamal ne am na bés ba wàññeeku ci sa dund bi ba tax na njëlbeenu audience bu ñu am ak suñu boroom yan nañu ko buur yàlla nangul amin ya rabbal alamin mu doon xéewal ba mu jagleel askanu jullit ñi waaye ñaareelu xéewal bi mooy xéewalu nelaw bi nga xamante ne buur yàlla tabaraka moo ci bokk boole yemale bépp mbindaafoon bay dukkat ci kaw suuf si moo xam ki am la moo xam ki ñàkk la moo xam liir la moo xam góor la walla jigéen xattaa mala yi dañoo am cër bu toll ni ñoo ngi dund xéewal boobu yàlla jagleel mbindaafoo ni te mooy xéewalu nelaw waaye yàlla di wax ak doomu aadama yi ne leen mooy buur bi nga xamante ne moo leen defal nelaw mu nekk dallukaay ba ngeen di dalloo buñ demee xool ci suratu naba pour yàlla di ñu wax ne wa jaalna maa leen defal nawmakum nelaw ba ngeen di nelaw subaatan mu doon dallukaay woo xamante ne du ngeen amee dallu ji mel ni la ngeen di am ci nelaw ca feneen waaw man yàlla maa leen may seen nelaw ba ngeen di nelaw mu nekk dallukaay ju mucc ayib dallukaay joo xamante ne du ngeen amee dallukaay lu mel nii ci feneen fudul ci nelaw moo tax mu ne ñu naa wajaalnaa nawmakum subaatan man yàlla maa leen defal nelaw mu nekk dallukaay boo xamante ne du ngeen amee dallukaay woowee ca feneen fudul ci nelaw ci mbaaxu yàlla subhaanahu wa taala tax na ñoo ngi fàttali mbokk yi rekk ñu ngi ànd ak ci waxtaanu azakka joo xamante ne ña koy bañ a génnee yàlla suñu borom am na lam leen tikku am na lam leen dikk waaw lam leen dikk nag mu di tëkku ju métti ci aaya bañ doon waxtaan ak yéen démb tey ñu fas yéene leeral lenn ci ñay bañ a joxe azakay alal yaleen yàlla dénk mu nekk màndargaay naafiq joo xamante ne ñoom ñoo doon dund ak bi te yonent bi jàppee leen ay jullit kon yow mi nekk ci askanu jullit ci jamono ji bu fekkente ne aaya bi jikko ya wone aaya ba ñuy waaj a waxtaanee nii ci suuratul munafiquun aaya ba nga xamante ne day joxoñ jikko naafiq yi ngir ñàkk joxe seen azakay alal xamal ne aaya boobu boo ko nattee sa jëmm ji bu dee jikko yooyu mu ngi ci yow mu dëppook jikkoy naafeq ba yàlla di joxoñal yenentu bi ci aaya bi kon nang ci seppi sa bopp na nga géema góor góorlu bañ a bokk ci jikkoy naafiq ya aaya bi di joxoñ ci saar bi mbokk yi bu ñu demee xool ci suratul munafiqoon la ko tàmbale ci juróomeelu aaya bi ba keroog saar bi di jeex di nga fekk buur yàlla tabaraka wa taala muy baaxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko naafiq yi de ñoom ñooy ay jëmma yoo xamante ne wa ida qiila lahum taalaw yastaghfiru lakum rasulullah lawaw ru'usakum wa ra'aytahum yasudduuna wa hum mustakbiruun sawaun alayhim astaghfirta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfira allahu lahum inna allaha la yahdi alqawman fasiqin hum alladina yaquluuna laa tunfiquu ala man inda rasulillah xatta yanfaddu walillahi xadaa'inu alsamawati wal ard walakin almunafiqina la yafqahuun yaquluuna la in rajana ila almadinati la yuxrijanna aaddu minha al adal walillahi alizzatu wa lirasulihi wala walilmuminin walakin almunafiqin la yaclamuun sadaqallahu alazim mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot aaya bi buñ ko doon xool jamono ji léeg-léeg ñu gis melokaanu lenn ci nit ñi mu dëppoog la aaya bi di tekki buur yàlla ne yonent bi ne bokk na ci màndargay naafiq yay du dundandoor ak yow xanaa du ñàkk am ku laaj lan mooy naafiq naafiq mooy jëmm joo xamante ne day bokk walla day boole boppam ci kuréelu jullit ñi naam waaye la mu fas ci xolam mooy na jullit yi torox lépp luy yiw yéenewu ko jullit ñi lépp luy safaanu yiw lay yéenee jullit ñi bu ñu ne na jullit yi boole joxe moom day ngottaaral day bañ a joxe buy dem bay joxe tamit day joxe ngant ju toll nii dañ ko naan jaru ko ak li ni mel xolam amul dara la mu ëmbal jullit ñi ci lu yiw lu ñaaw lu bon luy gaañ jullit ñi ak la jullit ñi di amee échec ak defet la ëmbal jullit ñi ci biir xolam moo tax ndegem yonent bi du xàmmee seen comportement yooyu waaye yàlla muy buur bi xam la doomu aadama ëmb ci biir xolam ci lu yiw ak la safaanoo yiw buur yàlla ne yonent ne nag kaay ma jox la tegtal bi ni su ko defee nga ràññeet leen seen comportement ak seeni kàddu ba tax na yàlla ne ko hum wa ida qiila lahum ñoom ñooy ñoo xamante ne boo leen waxee ne tacaalaw moo ne te ngeen dikk ngeen ñëw yastaxfiru lakum rasulullah yonent yàlla bi daal leen jéggalul fa yàlla bàkkaar ya ngeen nekke ñaaw njorto ya ngeen nekke xool bu ñëgg ba ngeen nekke xool bu soxor ba nekk ci yéen ba tax na kaay leen yàlla mu jéggal leen seen bàkkaar yooye yàlla ne nag boo ko waxee ñoom kuréel yooyu boo leen ne kaay leen yàlla jéggal leen seen bakkaar mu jaarale ko ci yenentu bi kaay bi defal leen intervention médiateur seen diggantek seen borom ngir yàlla jéggal leen seen bakkaar nga gis mandarga ba ma lay waaj a tegtal ni yow yenentu bi yàlla ne yenentu bi bàyyil xel mandarga ya ma lay waaj a tegtal nii boo ne kaay leen taalaw ñëw leen dikki leen yastaghfiru lakum rasulullah yanunti yàlla bi ñaan intervention fa yàlla ngir yàlla jéggal leen seen bàkkaar xoolal màndarga bi malay lay waaj tegtal law waw saxum waaw loolu benn màndarga la nga gis ñuy sëgg seen bopp di gémma yolleeku ci jotaay bi waaw kii waxuñu dara lu dul kaay leen ma jéggal leen seen bàkkaar fa yàlla waaw ah, gis ñu di rocceeku ci toogaay bi ci penc bi ah gis gaa di rocceeku ci jotaay bi conférence ba nga woote ndaje bi nga woote séminaire bi nga woote kaay leen ma ñaanal leen yàlla njëggal képp kuy rocceeku boppam walla muy meloo melokaan wi ni mel kooku naafeq la loolu di benn màndarga ba alquran tegtal ci jikkoy naafeq ñaareelu màndarga bi mooy ay wa raaytahum yasudduuna wa hum mustakbiruun ñooñu rocceeku ci bërëb ba ba daldi tegu ci yoon wi ñuy dem képp ku ñu gis muy ñëw ci sa jotaay bi yow yonent bi walla képp ku ñu gis muy dem ci jotaayu xayriya yooyu jotaayu yiw yooyu jotaayu jéggalaakoor ba ñuy fàggoo ci jotaay woowu jotaayu njàngum alquraan jooju jotaayu fa ñuy waxee yàlla nee na yonent bi nee na ñooñu rocceeku ci mbooloo bi tegu ci yoon bii di ñibbi wala di dem doxi seeni soxla képp ku ñu dajal ñu xam ne ci bërëb boobu ngay ñëw dañuy gàllankoor yoonu kooke dañ la naan mbaadu si ndajab waa ji ngay dem gaa yooyu woote foofu mbaadu foofu ngay jëm ñooñu de waxuñu fa dara waaw ñooñu de waxuñu fa dara nekkuñu fa dara di def lu dut waaw ñoom daal <laughs> dem doxi sa soxla daal moo gën nga dem wuyu leen waaw wara ay taxum yasudduun nga gis ne ñoom ñooy ñoo xamante ne dañuy gàllankoor nit ñi ngir ñu bañ laa wuyu si yow yonent bi wala ñoom ñooy nit ñi nga xamante ne dañuy gàllankoor képp ku sol dàllam képp ku war waru waayam war a dem fa muy jëlee njéggalaakoor bay tukkee ko fa yàlla fa muy jëlee la kay njëriñ ci diineem ah dégg nga ñu ne ustaas sangam wala imam sangam wala borom xam-xam sàngam de woote na nee na conférence walla ndaje diw wala fu ñuy jàngee alquran béréb sàngam bés ni ki tey la képp ku ñu gis mu di fa dem ñu gàllankoor la wax la ba dem moo tax yàlla ne war ay taxum nga gis leen ñu yore seen ñaareelu màndarga bi yasudduuna dañuy gàllankoor nit ñi te ñetteelu jikko ba ñu làmboo mooy wahum mustakbiruun dañuy ànd ak rëy rëylu moo ne ñu ne la kaay ñu jéggalul la sa bàkkaar fa yàlla nga sëgg sa bopp dal di rocceeku ndax bugguloo faa teew mais demal loolu yow la concerné waaye nag nga làmboo ñaareeli jikko bi mooy wara ay taxum ñooy ñoo xamante ne après da leen di séen nga gis leen yasu duuna ñooy gàllankoor nit ñi ñu bañ laa fekk ci yow yonent bi ca la nga nekk seen ñetteelu jikko bi mooy waxum mustakbiruun dañuy doon ñuy rëy di xeeb nit ñi di xeeb jullit ñi dañoo toog ak jullit ñi dañ jullit ñi dañoo xeebu waaw seen leader bi sax waaw ñu di ko yekkal li kenn mënul wax ci kaw loolu noonu jikkoy naafiq yi la woon lañ doon jëmal ci yenant bi dañoo xeeboon sahaaba yi ya àndoon ak yenant bi dañoo xeeboon gestu saxaaba yooyu waaw yonent bi sax léegi léegi sax ñu dugal ko ci ñu ñu ñu ñu doya dal fekk ñoom ñoo nekk ñu doyadal ñoo ñooy ñu doya di waaw seen jikko àgg fi yàlla daal di leen mere ne yonent bi ne loolu nga leen yéene di leen jéggalul seen bàkkaar jaru ko ndegem ci man nga nara dox médiation médiateur pour ma jéggal leen jaratu ko yàlla ne yonentu bi ne doy na sawaun yam na képp alayhim ci ñoom astaghfirta lahum moo xam sàkku nga leen jéggal fa man yàlla am lam tastaghfir lahum wala bañ nga leen sakkul njéggal fa yàlla lan ne fa man yàlla de mooy lan yaxfira allahu lahum yàlla du leen jéggal te du leen musa jéggal nga def ko duma leen jéggal nga bañ kaa def duma leen jéggal nga sàkkul leen intervention ci man ngir ma jéggal leen yàlla ne yonentu bi ne duma ko def nga bañ kaa def tamit duma ko def waaw moo tax mu ne sawaun alayhim yem na képp si naafik yooyu astaghfirta lahum dox nga médiation sama digganteeg ñoom ngir ma jéggal defuma ko am lam tastaxfir lahum wala moo xam defoo ko li fi nekk kañ ci man yàlla mooy lan yaxfira allahu lahum deet yàlla mu di leen jéggal seen bàkkaar yu bon yooyu ñu nekke wala ñu fas ko seen xol wala ñu di ko jëmale ci yow ndax man yàlla maa xam liñ la ëmbal man yàlla maa ki xam lañu ëmbal jullit ñi ba tax na loolu ñu ëmbal jullit ñi ci ñaawteef ci lu bon ak defet ah tax na ma nit duma leen jéggal ndax yow xamoo ko yow yonent yow xamoo loolu xamoo la naafiq ëmb seen biir xol jëmale ko ci yow ak sa diine bi ak ñala topp ci sa diine waaye man yàlla mi ko xam nag ah moo tax ma ne la yem na si ñoom kepp moo xam sàkku nga leen jéggal ci man walla bañ nga leen sakkul njéggal ca man yàlla waaye la nekk fa man yàlla mooy lan yaxafira allahu lahum déeti yàlla mu di leen jéggal mooy yàlla lu tax yàlla ne inna allaha naka yàlla laa di déet muy gindi xawman abu xeet wi nga xamante ni faasiqiin dañoo génn topp dañoo jël ndigle yàlla salfaañe ko ñuy yëjji ña yàlla jox dayo ñiy yëjji di doyadal ña yàlla jox dayo déeti yàlla muy jéggal ñu meloo melokaan wi kon képp kuy dund suñu société bi jëlal aaya bi nga natt ko sa bopp par rapport ak ña yàlla jox dayo ña yàlla jox maqaama ci pénc bi noo mel ak ñoom jox la leen gidd bi ni mel wala danga leen doyadal bu dee jox nga leen gidd kon yow bokkoo ci aaya bi bu dee joxoo leen gidd nag ah su boobaa nag konteel sa bopp ci ña yàlla di wax ak ñoom ci aaya bi yàlla ne bi léegi bokk na ci màndargaay nafiq yooyu noonu humul ladina ñoom ñooy gaa yoo xamante ne yaquluuna dañuy wax ne laa tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu bu leen jël seen alal di ko financer si projet ba leen bi jaay projet ba leen bi jaay bu leen ko financer bu leen dugal seeni loxo projet ba leen yonent bi jaay di projet ila i kalimatu laa ilaha illa allah procès baleen leen yonent bi jaay mooy procès laa ilaha illa amul benn buur ba ñu fi war jaamu ci dëgg ku dut yàlla procès bi leen leen yonent bi jaay naafiq yi dañuy taxaw di wax nit ñi ne bu leen financer procès bi waaw laa tunfiqu bu dugal seeni loxo ala man inda rasulillahi procès ba leen yonent bi dikkee bu leen ko finance de waaw militant ya wër yonent bi militant ya topp yonent bi yonent bi projet bi mu andi waale militant ya fa adhéré wo bu leen leen financé lànk leen ba tëdd bi jël leen seen alal yi ngeen téye ko naafiq yi lii la ñuy campagne à côté démb ak nuroog tey mbokk yi wallahi démb ak nuroog tey doxalinu démb moo nuroog suñu doxalin wi tey humul ladina yàlla naafiqi naafiqi ya nekk ci pénc bi wan yonent bi ne ñokk yow la ñooñu ñooy nekk di nguni nguni ci suuf di wax ci suuf lañuy ñuy wax mooy yaquluuna dañu naan laa tunfiqu bu leen financé alaa ci li nga xamante ne man inda rasulillahi ñoo adhéré wu ci procès ba yonent bi andiwaale bu leen leen financé de hatta du ba keroog ñuy deñ di bàyyi yenent bi bu ngeen téyee seen alal ndax yenent bi amul alal yàlla jox ko dara ah kon yéen jullit ñi bu leen jël seen alal di ko financer si projet ba leen yonent bi dikkee bu leen leen ko financer de bu leen dugal fifteen ci la yonent bi projet bi mu andiwaale bu fa kenn tabir loxo waaw bu ñu sonnee amuñu lu ñuy lekk amuñu lu ñuy naan amuñu la ñuy financer seen projet yooyu dinañu wocc yenent bi bàyyi ko moom kese moo tax mu ne xataa yan faddu ba keroog ñuy tasaaroo ci wetam yàlla ne naafiq yi lii ñuy wax nag dañoo xamul yàlla daal leen tontu yàlla ne leen walillaahi ñeel na yàlla walillaahi xanaa xamuleen ne yàlla moom xazaa'inu samaawaati wal ard magasin yu fees dell nekk ci asamaanu juróom-ñaar ci ay xéwal xanaa xamuleen ne yàllaay boromam loolu ngeen di tere ñuy financé ko ci yonent bi ak ñamu àndal xanaa xamuleen loolu ngeen yore yàllaa leen compal jox leen ko walillaahi ñeel na yàlla xadaa'inu samaawaati wal ard xéewalu asamaanu juróom ñaar yedduy ay magasin ya fees del ci ay xéewal yàllaa ko moom xanaa xamu leen loolu walillaahi ñal na yàlla xazainu ay ay ay magasin u magasin mu magasin yu fee dell ak xeetu xéwal yu kenn du mën a xayma te ñu nekk ci asamaanu juróom-ñaar xanaa xamu leen ne yàllaa moom loolu par rapport ngeen tolloole ko ak yéen li ngeen yore wal ard xanaa xamu leen ne xéewalu juróom asamaan ya nekk fa yàlla yàllaa ko moom wal ard xéewalu magasin ya nekk ci juróom-ñaari suuf si xanaa xamu leen yàllaa ko moom kon yàllaa leen gën a ëppale la ngeen yore waaw ndax la ngeen yore day jeex da ngeen di kuy jeex fa ngeen nekk di ko jëfandikoo da di kër guy jeex doomu adama day jeex la mu yore day jeex àddina ba mu koy jëfandikoo àddina bi day jeex moo tax yàlla ne ñoo ci beneen aaya maa indakum yan faddu wa maa indallahi baaq la ngeen yore la fa lafa yéen doomu aadama yi day jeex ndax dangeen di jeex lu ngeen yore day jeex wa ma indallahi baax la yàlla nag mooy des bi faw ndax yàlla du koy jeex yarul luy jeex waaw jalla wa ala yàlla ne walillaahi ñeel na yàlla xazaa'inu samaawaate magasin wu xéewalu asamaanu juróom-ñaar yàllaa ko yore wal ard ak magasin wu juróom-ñaar ca ay xéewal ya nekk ci suuf si yàllaa ko yor walakin la fi nekk ah al munaafiqiin de laa yafqahuun ñoom seen xel natut lii ñoom amuñu xel bu tollu nii magasin wu juróom-ñaar asamaan yafees dell ak xiiwal yàllaa ko yore magasin wu juróom-ñaar yafees dell ci ay xiiwal te nekk ci suuf yàllaa ko yore walla al munafiquun walakin al munafiqin la yafqahuun naafiq yi ñoom seen xel dajut loolu ba léegi bokk na seen màndarga yi mooy naafiq yi yàlla mooy wax ak yonent di leen won màndarga yi naafiq yi nga xamante ne dañuy campagne ngir contre yonent ci alal financement waaw yàlla ne yaquluuna ba léegi bokk na ci lu ñuy wax la in rajana keroog bu ñu delloo ilal madinati bu ñu delloo madina ah dinañu seppi dinañu distinguer dinañu rocci waaw la yaxrujunna aadu min al adal dinañu seppi ña nga xamante ne ñoo tedd ci ñun ñu wàccak yonent bi ñu suufi yonent bi la ñuy ku suufe saxaaba ya mu àndal la ñu dippe ñu doyadi hmm. ñoom seen nattukaay foofu la ñu ne bu ñu delloo madiina di dikk ba ñu nekk bu ñu delloo suñu dëkk ba ñu naan madiina te ñu dëkkee ko ah lañuy def mooy la yuxurijanna ahadu min al adal dinañu taxale ko ñu tedd ñeeg ñu doyadi ñi waaw ñoom daal dañoo jàppee seen bopp ñu tedd ñi ñoom naafiqi ñoom dañoo jàppee seen bopp ñu tedd ñi yenentu beeg saxaaba yi lañu jàppee ñu suufi ñi moo tax mu ne la in rajaana bu ñu delloo ilal madinati ca dëkk ba ñu naan madina te mu doon suñu dëkkuwaay ah lañuy def mooy la yuxurijanna dinañu génne la yuxurijanna dinañu seppi aazzu ña kawe min naa ci ñun al adal ak ñu suufe ñi dinañu tàqale ko ñu kawe ñu suufi ñi ñu suufe ñi mooy ñu ànd ak bi ñu kawe ñooy ñun naafiq yi loolu la ñu xalaat yàlla tontu leen léegi waaw bi léegi yàlla di tontul yonent bi rek mu ne ko walillahi ñaal na yàlla al izzatu mboolem xeetu kawey wali rasulihi ak yonanteem walil muminin ak mboolem woy gëm yàlla ñi nga xamante ne dañoo wéetal yàlla topp yonante bi sallallahu alayhi wasallam walakin na fi nekk al munafiqin wax lii di comporté woo nii laa yaalamuun ñoom xamuñu loole yàlla jil garaatu noblesse waaw noblesse ba yàlla nekkee garaadu noblees ba yàlla nekkee mu tabal ko yenantu bi waaw mu jël beneen grade noblesse tabal ko way gëm yàlla ya topp yenantu bi kon gis nga fii yàlla xañ na naafiq yi garaatu noblees bi nga xamante ne ba keroog àdduna du tukki képp ku gëm yàlla wéetal ko topp yenantu bi sallallahu alayhi wa boo ko xamee ak boo ko xamul yàlla tabal na la graatu nobles joo xamante ne keneen ku dul ci yàlla amul kenn ku la ko war a mën a tabal waaw ah, kon doon ki gëm yàlla wéetal ko ci nguuram wéetal ko ci jaamo jànkayi jaamu topp ndigle yenent bi sallallahu alayhi su ko defee nga bokk ci ñi yàlla tabal gratu noblesse yooyu moo tax yàlla ne walillaahi ñeel na yàlla walillaahi yàlla fi moom moo fi musa moom tamit ba ilal abad lan al izzatu mboolem kawey mboolem xeetu nobles yu kawey mboolem xeetu nobles yu màgg yi yàlla la ñeel wali rasulihi ak yonentam bi waaw waaye nag mu wàccee ko ba jox ci walil muminin waaw mboolem xeetu nobles yooyu yàlla jox yonent bi mu am yeneen yi mu baaxee way gëm yàlla ñi waaw kon fii naafiq yi bokkuñu ci noblesse yooyu kon yàlla seppi na naafiq yi ci noblesse yamu jagleel way gëm yàlla yi yàlla xañ na noblesse yamu jagleel way gëm yàlla ñi te mu seppi ci naafiq yi ndax naafik yi ñoo ne bu ñu delloo Madina dañuy seppi ñu kawe ñi ci suñu biir par ak ñu suufi ñi yàlla ne walillahi al izzatu yàlla fi kawe wali rasulihi ak yonentam bi kawe na walil muminin waaye way gëm yàlla ñi tamit kawe nañu waaye nag li fi nekk walakin al munafiqin naafiqi yi de ah ñoom laa yaalamuun xamuñu lii te duñ ko mus a xam mbokk yi képp kuy ut noblesse na nga ut topp yàlla ak ndigle yenentu bi nga doon ko gëm yàlla wéetal yàlla ci lam la sant nga géem a góorgóorlu tënku ci loole lépp lum la tere nga géem sore sa kémtalay kàttan su ko defee yàlla mu boole la walla nga mun a médito noblesse ba yàlla tabal yenentu bi te mu tabal ko sahaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain mbokk yi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 assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu